tëstu démb bi taximaan bi ak député bi na nañoo dee démb kan la kan la kan la man kenn du yóbbu bis taximaan bi nag am lu mu waxoon. mais kenn du ma yóbbu kër yaama. waaw ñi nga xam ne tamit xëj na dégluwuñ ko woon wala da leen rëcc. Mm-hmm. seexanta daf ñuy ñamalaat rek xanaa taximaan bi tuuti. Mm-hmm. deuxième partie ñu yow député bi. Mm-hmm. bu ci xëjee ñu ubbi téléphone. bu ci xëjul ñu mayee xarte daw. du noonu. du téléphone may xar. non li mu indi woon dafa am benn 4-4 bu ma mbëkkoon parcelle vingt 26 ci stade bi léegi mu mbëkk ma wàcc xool sama feu bi toj ma laaj ko ma ne ko sëñ bi depuis fële ba léegi yaa ngi topp sama ginnaaw suus ma maa ngi lay sóor. looy laa yor maa ngi lay sóor mu ne ma parce que ni nga génne fale baaxul ma ne ko su fekkee ne loolu nga wax parce que ni ma génne fale su baaxul kon looloo tax nga mbëkk ma mu ne ma waaw kon ma ne ko yaa ko tey mu ne maa ko tey. ah voilà fu mu ko mu ah xaw ma fu mu ko xam naa ne dafa am da ne wéyee dafa am doole ko ne moom moo ko tey léegi nag bëgg a yéegaat si otoom di dem ma ne ko nag doo dem parce que man damay constaté. Ah mu ne moom day dem fi ñu xottante fa ma ne du dem. moom chauffeur bi ci boobu mu wàccaat ne ma sa wax ji jeex na ma ne ko mais jeexul mënoo bëgg sama moto ba pare bëgga a dem. dem noonu ba voilà léegi dóor ma fii. Ah. ci loos til. mu dóor la blon. dóor ma fii arrêté ci loos. non si ma fayu. Ah. ma résister fayu. Ah. ñu songoonte foofu léegi. moom gaan bi nekkoon ci kanam. moom nee na la mu wàcc. biir yi doxe ma ginnaaw maa ngi tiim waaj moom mu dóor ma arrêté ci ginnaaw encore. ñu sot ma léegi léegi gars yi nekkoon foofu nag ci lay ñëw nag wër leen ne leen c'est pas normal li ngeen di def. parce que mënu leen a yàq oto jàmbur pare wëlbatiku. Ah, bëgg ko dóor bëgg ko sot ne da ngeen di dem. bi coow li bëree nag. ñu soroo ma foofu encore waa ji ci boppam député bi moom génne mm, appareil électrique yi ñuy maase ko waaw waaw waaw ñuy maase ni mu nekkoon ci ginnaaw. voilà ba poñ poñe ma ba max ma ci biir nit ñi ma daanu. mu ah. génne appareil électrique pour di ma ko maas. ci li ni benn waaye doxe ma ginnaaw gisuma boon sax ba max ma ne ma dawal parce que arme la yor quoi. beneen waa ci moom chauffeur bi mu àndal doxewaat ma ginnaaw encore dóoraat ma beneen arrêt. léegi su ma demee wuti fële kii doxe ma ginnaaw su ma wutee fële kële doxe ma ginnaaw finalement. nit ñi fi nekkoon foofu ñoo ci mujjoon jàpp. ne leen duñ dem duñu dem bi coow li bëree nag. après gars yi na ma ay quatre personnes taxaw fale na ma léegi bàyyi leen ñu dem ko ak nga jël numéro oto bi parce que ñoom ñaar lañ te yow kenn nga te dañ lay gaañ après ma wax wax ñu ne dem nga quoi ñu ne demal police après gars yi nekkoon foofu ñoo ma tëjal sama oto sax récupéré caabi yi jël numéro jël numéro oto bi jox ma ko léegi après nag ci laa jëlee numéro oto bi léegi ma dem police léegi ma bind plainte léegi ma déposé ko quoi léegi nag moom nee na te daf may rey su ma reyee moom du mujj fenn ah. léegi nag numéro oto mu ngi nekk su fekkee ne moom moo 4-4. bu noir. su fekkee ne mun naa wax turam it man def fexe naa. ba xam fexe naa ba xam turam. parce que moom nee na député la léegi c'est le DK 23. mooy numéro mooy numéro oto mu ngi tudd am yaakaar daal de euh, ni léegi nag moom comme waaw même bu amee immunité parlementaire du tax lu la neex def ñun ñoo leen fal oto yi ñu yor ñoo leen koy jox ñoo leen jox essence bi ñu koy dawalee. kon bu yàqee alali jàmbur dafa war a taxaw constaté mais doo wone ne député la sa chauffeur bi nga àndal wàcc di dóore mel comme dof dëkk bi dafa am yoon. ministre de la justice mu ngi ñuy dégg euh, Niass. président assemblée nationale mu ngi ñuy dégg ñooñu ñëpp nag comme ñu ngi dégg moom nee na comme mënalu ma ko dara ñooñu léegi nañ ci wax parce sama alal dañ ko yàq na ma fay bind naa sama plainte nag déposé naa pour ci des nag il faut ma yéebaane ko pour ñu xam ne léegi dëkk bi dafa am yoon parce que ñun waaw parce que ñun fa ñu nekk ñoom ñun ñoo leen fa teg ñun lañ fa war a nekkal mais pas ñëw ci kaw tali bi yàq alali jàmbur ba pare dem ci noonu ñu wax nga wëlbati ku dóor nit ki mel comme dof ah député bi tamit wax na man de dama ne man du ma tudd tur moom ci boppam moom moo tuddal boppam turam. moo waxal boppam. waaw moo waxal boppam tuddal boppam turam. xam le ne man la sama chauffeur lii ak li ak lii léegi nag waaw. honorable député bu avez la parole. man ku ma xam xam ne du ma nitu ay. te te fu ay nekk itam dama koy sori. moo tax ba ma déggee mbir mi damaa jaaxle. parce que parce que lii nii euh, bi muy am ak léegi daanaka def na quinze jours. sama 15 jours waaw sama chauffeur bi nga xamante ne sax moom moo doon jàppanteek moom. Euh, euh, si diggante bi. jabaram am na fi doom. ba tey jii la ngénte li tey si alxames bi nii. donc donc bu ma xëyee laa ko dégg bon euh, te man comme ni ma la wax nii si début bi mënoon naa toog sax bañ a tontu. garde la flou parce que nee ñu député Benno Bokk Yaakaar la te yaakaar naa ne bari nañ Parcelles Assainies bu ñu fi milité wul itam fii la ñu dëkk. fii la ñu am ay kër. kon pour mais pour être honnête. danaa wax. vraiment pour que ñom ñu mëna nek à l'aise parce que ce qui s'est passé moi mooy euh, sama chauffeur dañu joggé sama kër di xey biñuy xey comme d'habitude stade amitié lañu jaar biñu jaaré fofu euh mi ngi jiitlanteeg benn taximan euh, taximan bi bu mu freiné xamna itam chauffeur bi bàyyiwu si xel néna dafa freiné brusquement mom mu dal ci koom maanaam kon chauffeur taxi mo moo freiné brusquement waaw légui sama auto dal ci koom waaw ba mu dalee si koom euh, ñu génn di coowoo taximaan bi moo génn commencé yuuxu ne ko yow si suba ba léegi yaa nga ma topp. loolu ban heure la woon accident bon je pense euh, c'était parce que dama doon gont. dama doon gont. parce que je crois waaw waaw dama doon gont. parce que mi ngi am normalement vers les de peut-être. ay quatre quinze heures seize heures yooyu bon certainement si la si la war a am jàpp jàppatuma exactement heure bi mais xam naa ne heures yooyu la. bon bi mu génnee mu ne chauffeur bi yow si suba ba léegi yaa ngi ma topp. chauffeur bi na ko mais man aw ma jot di la topp man lu ma lay toppee doye. donc ñu wax foofu seeni wax man maa ngi toog fi ma toog ñu wax seeni wax ba songoo bi ñu songooyee euh, si laa wàcc. gars yi àtte am na ñu fa nekkoon ñu àtte kon maanaam sa oto moom leer ba leer mooy ci accident bi sa oto mbëkk na otoom ci gannaaw. effectivement ça je le reconnais. bi mu ko mbëkkee si la wàcc. bon bi ñu xeexee si laa wàcc fekk gars yi àtte ma ne ko ah mon frère mu ne ma ah ma ne ko léegi bu fekkee ne daf la yàqal wala itam bu fekkee ne da nga bëgg ñu constat euh, da ngeen di échanger ay permis comme ça seen oto yi ban a bouger ngeen woow police wala gendarmerie ñu ñëw defar leen constat mu tontu ma ne ma yow sa yoon nekku ci moom moom taximan ba mu ne ma sa yoon nekku man si laa yéegaat sama oto toog pour man mi dina woo constat kon ñu constaté jamono jooju ba mu la waxee loolu yow dèjà loo yëg non xam nga xam nga man ku ma xam xam maa calme man je sais pas ces problèmes là <laughs> kenn kenn mënu ma déstabiliser wala mu kii ma ma sama oto toog du dëgg ñu nekk foofu coow li bari coow li bari ba ñu songowaat bi ñu songowaatee benn taximaan yegg si xam naa ñàkkul ne xaritam la man damaa gis rek moom mu topp si ginnaaw kële bi ñu songowaatee sama chauffeur mooy muy muy sotal taximaan bi kon ñoom ñaar taximaan yi après dañu song sa chauffeur di xeex ak moom waaw ah. bi ñu fa dee sot man là j'ai l'obligation quand ma wàcc nag défendre sama chauffeur parce que nag euh, man il est sous responsabilité man maa ko jël di ko liggéeyloo donc duma bàyyi ñu koy gaañ bi ma wàccee man maa ko àtte maa ko xëcc xam nga amoon na ay bousculade du dëgg ma xëcc sama chauffeur teg ko fële boobu sonn na parce que waa ji daf ko matt daf ko matt ba muy nàcc ma jël ko ne ko toogal ne le toogal si si si beneen sens bi man ma jël volant du dëgg waa ji euh, ma ne ko léegi xoolal bu fekkee ne da nga yàqule moo tax fi mu demoon tës euh, war nañ ko ne ko war na leen won oto bi ndax am na xoosu xoosu boo xamante ne ni euh, jouru kii bi la am y en avait pas dara yàquwul si oto parce que bu yàqoon man j'ai l'honnêteté quand même ma ma fay ko ko xëy na sax du ñu yegg ay ay ay constat yooyu mën naa ko fay parce que xam naa ne xëy na du doon loo xamante ne dana garaaw te man taximaan yi sequma ak moom sequma ak ñoom loolu man dama leen nawloo man dama si bëri ay xarit. alors tey moom ci test bi bu muy wax tey bi bi suñ dellu soit ci événement mooy ci xeex ba fu mu amee. moom nee da nga xëy génn rek song ko di dóor kii di dóor fii kii di dóor fee. waaw mais yow loolu yow mii sax di ma laaj loolu doo ko gëm. Ah, nit ngeen ngeen def choc rek ma wàcc rek song la te sama oto yàquwul xanaa bu fekkoon ne sax dafa yàq sama oto. ma mer <laughs> mun naa wàcc sax di ko song. waaye man maa mbëkk otom après wàcc song ko. loolu yàlla na maanaam. yow da ngeen di jàpp na nga leen sot dañu sot dañu sot sa chauffeur dóor ko. yow nga wàcc moom na ci wàcc boobu nag. da xam nga ba dem na sa bëne nga matraque. xam moom bu mu xam sax lu ma yor sama biir oto. parce que nag j'ai le droit de me défendre. bu mu xam lu ma lu ma yor sama oto. <laughs> parce que mun naa am euh, permis pour port d'arme mun naa am leneen leneen pour pour ma défendre. mais dama la ne man du ma nitu ay rawatina may ay ak ay taximaan yoo xamante ne man samay xarit lañu laaj ko waa diset laaj ko waa église ba ak feneen ak feneen man taximaan yi damay jóge sama kër dem ñëw si ñoom ñuy bokk di naan ataay di waxtaan place Pape Cissé mii nii Paco donc man ñooñu sequma ak ñoom loolu te ñoom ay nit ñu baax lañ du dëkk mais nag mënoo ne benn corporation ne fii ñëpp a baax loolu amul fenn même député yi am na ñoo xamante ne lii may nee nii ñoom mën nañ ko def donc foo dem rek fekk fa koo xamante ne capable na xëy na def yenn mais kii moom dafa capable moom moo moom moo def après xëy na euh, bu fe dafa bëgg xaalis man loolu laa yaakaar parce que parce que yaakaar na ne xëy na waa Sen TV daañ ñu maye dina ñuy maye euh, xëy na mënoon nañ ko régler préjudice boobu peut-être si sama xalaat voilà mu fekk ne xëy na dafa bëggoon xaalis si man mais loolu man du ma doxee noonu. kon daal su ma la déggee du benn yoon boo xamante ne yow sa loxo jóg noonu dóor ci benn taximan. non déedéet y avait y avait quand même nag bousculade man quand même wàcc naa pour protéger sama chauffeur parce que aussi du ma ko du ma bàyyi ñu koy gaañ. kon man ci kooku moom non ça c' est clair man quand même parce que ku xooloo si xam ne tuuti woo macha allah waaw moo tax sant yàlla kooku xajuma si koom waaw waaw moo tax bu ñu mënee woo te aussi parcelle mi ngi nii yaatu na du dëgg euh, te ñi ma xam xam nañ ne man du ma tooñ te man du ma nitu ay man nitu nitu jàmm la parce que et puis fu fu itam dabuma parce que man bañ ma falee li ma njëkk a ñaan suñu borom li ma ko njëkk a ñaan te daan ko ñaan aussi si biir campagne bi ne yàlla na buñ ma falee bu ma fuy te bu ma bew loolu daan naa ko ñaan suñu borom te yaakaar naa ne itam dalu ma. alors li jaaxal nit ñi ma li jaaxal si ñuy tis ma soo déggee dañu naan député bu xeex député bi nga xam ne dafa war a yóbbu nit teg daw doxal yoon député bi di xeex. tey loolu non buñ buñ na député bi di xeex moom foofu na ni mun nañ jàpp ne député bi xëy na da doon àtte xeex. mais député bi du xeex te te waxuma la waxuma la li nga xamante ne moom moo waral euh, parce que dégg naa ne dafa porter plainte. waaw waaw loolu. man beneen laaj la. Euh, waaw. nee na sa porte na plainte commissariat waaw yaakaar naa ne porter plainte bu doon am sama chauffeur mu doon na porter plainte moom muñ màcc màtt ba mu nàcc te yaakaar naa ne dana ñëw suupa hmm? de bu sumee ko yaakaar naa ne mën nañu gis màtt màtt bi man mi nga xamante ne damaa taxaw ne yow yaay mu ne kilifa laa ba waruma def dara ci mbedd mi man mu saaga ma parce que ba ma ñëwee ne ko ah man de bu ma sañoon ngeen échanger ay permis daf ne ma sa nekku si ba ma wàccaatee ne ko sawaay lii moom vraiment coow li arrêté leen ko def leen constat daf ma saaga daf ma saaga donc bu bu porte plainte doon am man maay porté plainte mais man comme que vraiment du ma fi nekk di joteeg. Euh, waaw taximan yi nga xamante ne. vraiment commissaire commissaire woowu la. waxuñ la dara ci mbir mi. non non pas du tout. Ah, xam nga man bu ma wooyee man je respecte la loi. du dëgg bu ma wooyee danaa dem danaa dem wuyu ji ko nest pas xam nga danaa dem wuyu ji ko euh, déglu ko parce que làmmeñ quand même mënul lekk morom te ñorul. te man bu ma ko defoon bu fekkoon ne dama koo dóor mais dama koy assumer parce que ku ñu saaga ku ñu jàkkaarloo yow di la saaga boo amul maîtrise mun nga dóore mais yàlla dimbale na ma yàlla dimbale na ma te loolu xëy na maîtrise boobu xëy na li ñu nekk ay politiciens euh, moo tax yàlla may ñu ko parce que dañu ay nitu mbooloo lañu léeg-léeg di nga dem fenn président réunion léeg-léeg di nga toog nañ la wax la naqareeg yooyu mais da ngay muñ

mais indiscipline nag fu ne la am man du ma mus a wax ne taximaan yi dañu indiscipliné parce que waaye euh, daanaka ñi si ëpp yar lañ am ñu si gën a bari xam nga ñu yaru leen xam nga te rawatina sax fii si Parcelles Assainies man ñu ma wegg lañu du dëgg ñu ma seq ak jàmm lañu te dinaa la dinaa la wax benn affaire tu sais ne man bi ma nekkee opposition man je vais deux taximaan yi xam nañu li may wax Pape moom xam na li may wax ba rëg ñaari taxi yoo xamante ne vingt 21 maa ko moomoon jox ko sama xarit boobu. mbaa du dañuy bëgg a fay ko sax li ñu leen def seen taximan bi nga dafa yéegoon passerelle ba ñu jàpp député ni xaaral kon boobu boog ñëw mooy. <laughs> ah loolu day loolu day xam naa ne kon seen seen kii bi seen seen tentative bi doxul. doxul parce que c'est-à-dire que xëy na bu ñu daloon si keneen. mais mais Aline Badara Diouf député Aline Badara jouf ah waaye man léeg-léeg sax sama collègue yi fële assemblée nationale am na fa benn euh, ndeysaan Saane député Imowa la te dëkk Casamance euh, daf naan ma téye le député le plus sympathique de l' assemblée nationale. man su ma demee bay xeex nag kon nag wax dëgg yàlla war nañ ma xoolaat. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant.